dal leen ak jàmm ci gannaaw communiqué bi circulé te xamuñu ndax dëggalaam déet bàyyeekoo celew na ña seen ñëpp di ko waxtaanee te di ko partage ci réseau sociaux yi loolee tax na. waa Pastef les dal di ci indi ab tontu El Malick Ndiaye mi nga xam ni moom moo yor lu jëm ci wàllum communication parti bi dal di nay fësal benn communiqué boo xam ni Bassirou Diomaye fay secretaire général bi moom moo ko dal di def muy xam le ni ñi ngi xaarandi pour xam ndax dëgg lam déet ndax boobu la communiqué lu am la wala lu amul la wala itam lu wér la wala lu wérut la ñi ngi xaar ngir xam fan exactement la boobu lépp mbir dal di jugee ñu ngi ci ay vérification waaye li am ba des mooy ñi ngi xam la ni képp kuy patriote képp kuy sympathisant képp kuy militant ñi ngi lay fàttali que ni Ousmane Sonko nee na respect bi ñu wax nañ ko jox kilifa diine yi dañ leen ko jox ba mu mat sëkk buñ ci wàññi lenn képp ku mënti doon ak foo mënti ne ak foo mënti bàyyeekoo bàyyil xel que kilifa diine yi duñu moroom amul xaj ak seen ci benn këru diine fii ci Sénégal loolee mooy communiqué bi nga xam ne waa Pastef les Patriotes daal di nañ koy def jaarale ko ci ki nga xam ni moo di Bassirou Diomaye Faye di secretaire général ba mooy xam ne ni amul kenn koo xam ne may nañu la ngay wax lu ñaaw kilifa diine yi dinañ nag vérifier boobu lépp communiqué ndax dëgg la déet lu ci mënti am parti bi dina ci dikkaat indi ci ay leeral indi ci itam ay xibaar yoo xam ni membres yi yi ak képp kuy patriote rek di am lu la leer AGT News